ma jóg fas yéene liggéeyal sëriñ Tuuba ku ngeen jëf mbokk yi seetaan l TV asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ànd ak yéen ci seen deuxième numéro Touba Direct tey ji nag Touba Direct dalal waa daayira Muxaddamatul Xidma bàngaas bi yore lépp lu jëm ci kaaraange ci turu sëriñ Makhtar Kane fan yi passé lu ñetti fan am na liggéey bu am solo buñu def muy teg loxo boroom ñaari tur yu fas yéene woon de fii ci Touba waa daayira xidma fexe ba gàllankoor lool liggéey boobu nag ñu ànd ci ak safinatul amaan police ak gendarmerie lëkkaloo ci ak mboolem ñi nga xam ne nii dañoo yor wàllu armeel fii ci Touba Serigne Makhtar Kane indi na ci ay leeral. suñ mbooloo mépp jóg daayira ñu commencé ci jëwriñ Sëñ Fallou Mbacke ba ca suuf ñu àndandoo ngir nag loolu ñu wax ne am na Touba ñu saafara ko ñu yebal ma bàqee ama bi juti fa ngir tas ci biir morgue beeg balaas yëpp ngir fu mën a jaar ñu koo xam bi mu agsee ci bàqee ah ni ñu ni néew yëpp ni ko recevoir mooy laaj ko certificat de décès mu indi ñu xool tur mu tudd xool ko rey joxe gëstu yi ki mbokkal wala loo mbàjjan ji nga xam ne moo ci mag ci mu àndaloon moo indi ay leeral. donc nag dafay juddu si kon nag ab ak ak tey tuuti ñu xool ba xam liñ ciy dégg am na wala amut ñu commencé suñuy gëstoo suñuy laaj ak suñuy suñu tey nag jëfee ak suñu suñu def ndànk ba am firnde leer nañ ñi ne moom mii kët boroom ñaari turi la ko nag kon comme nu ma la mel rek te ñun avant loolu jokkoo nañ ak police commandant bi jokkoo ak commandant mu Ndindi bi ndax bu dee ci margu bi la police mooy liggéeyantu loolu bu dee ci Ndindi ci Barkéyan mooy ah gendarme mooy liggéeyantu loolu ñoom ñëpp ñu wax leen ko yëgal leen ko ñun suñu tax taxaw ba rafet bi ñu paree tamit ba jàpp waa ji tamit wala waa Safina Amane mi si mënuloo ngaabu wax ko ne ko ni nga moyor loolu saytu bu tamit woo ko daa koy leeralal a ah, comme que Safina a ak xidma moom du ñaar daayira benn daayira la. mu ne def liggéey bi rek ba mu paree rendre compte ci am na ak moom nag ak ñu ko indi woon muy ñu mbokkal ndey ak baay ñett ñi bokkal ndey ak baay ak benn jabatam ak benn wajaam ànd ak ñoom ban génn li Touba ba ca entrée daal Touba ko bàyyee nag na nag bu mu dem ci wër Touba ginnaaw bi jot nañ ay xabaar ne àggal Dakar ba mbokk yi jot nañ ca foofu la ci yem ak moom. liggéey bu am solo bu nga xam ne nii xet ma duñ ne guleet def na ko. li ko ko yombal mooy ak lëkkaloo gum lëkkaloo ak yeneen mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñoo nekk ci yeneen gox yi ci senegal rawatina bokk ci daayira bi di xidma. waaw ah, xam nga ñun tamit daayira bi la boo xam ne ni day daayira boobu ñëpp bokk daal bu nee mu xadamatul xima rek nga ko waxee rek nga jumaa ji lu ñëpp bokk la nga tudd penc mi lu ñëpp bokk la nga tudd Baxiyan lu ñëpp bokk nga tudd morgue ba ñëpp bokk ko te te man ay ay ay ay daayira yu ay ay ñun nekk yeneen dëkk am na ko dakaar am nañ ko mm, mm, Louga kadaalika am nañ ko biir Touba am nañ ay nit ñoo xam ne nii ñu naan bokk nekk Dakar di ay membre muy actif ci liggéey bi ñoom saa mu ngi si xabaar boo xam ne nii ñu na la leerlu dañu ko envoyé kadaalika mboolem mboolem taaliba yëpp nag ku gis loo xam ne nii jëm na ci Touba ci jumaaj ba ci Bakhina ba ci man yëpp ci am ànd ànd maase da koy gaaw a yëgle ndaxte jumta loolu du ñun rek lay dal ndax bu dalee dal ci mboolem murid yi si biir yëpp tax mu taaliba yëpp safoo xidma di ko bàyyi xel ba ku am xabaar boo yëg la jàpp ne la dara nga gaaw yëgal ñu ko ñun tamit ba ñu yëgalee danañ ko faram-fàccee gëstu ko ci suñuy maniin ak suñuy feem ak suñuy suñu xibra ba am ci leer bu leeree nañ défendre ko bu lëntee ñu accee pare ndax ñun daayira boo xam ne si si saan waxoon nañu lépp lu ngeen dugg lu ne na doon lu doon xam-xame tey lu ngeen génteen ni ci xam-xam génne gannaaw liggéey bu am solo bi ci wàllum kaaraange laata màggal Tuuba communication bu am solo la waa ma yëkkati woon ngir ñaax ak soññu mbokki taalibe yi màggal si ngir ñu bàyyi bu baax a baax xel worma ji ci jumaa ji ak li ko wër buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyikoo na ci sëriñ Maxtaar Kan mu yor lépp luy kaaraange ci wàllu woowu nee na kër ren jii Xidma def na ci liggéey bu am solo. waaw man màggal ren man màggal gi gën a gi gën a Xidma gën ndaxte ci li ngënoon jafe ñu wàllu ket gi mu di goon jafe ci ndax li toll ci mi ngi nii fees ak nit pour mu set day jafe waaye ren incha allah ren ji yàlla dimbali nañu ba saabun jullit fa pare dalal mbale mbale mu yaatu takusaan timis mbale mbale mu yaatu tagal mbale mbale mu yaatu te moom mos sa muñu ko nangoo mosuñu ko jekku ci màggal def nañ ko ak feem yu am solo bu dee ci wàllu liggéey tamit ah, ci wàllu liggéey màggal tamit xam nga ne Touba dafa am ay ay dafa am ay sartam Sëñ Tuubaa ko rëdd ak ay surut yu mat sëkk jox ñu ab liggéey nag tere nag dafa am laaj moo tax ñun liñ tere liñ tere jumaa ji lépp weesu wut tere charia moo tax di nga ko jëf ko jëf jàngale ndax dañ ne woon nit ki jógee Dakar misaal ñëw ak melokaan woo xam ne nii bokkul ak melokaan Touba nga génne ko nga génne ko jumaa ji loolu mën naa baax waaye mën naa jur ayib nga sa ko jàngal ko yee ko su bu ñibbee bu ñibbee def loo xam ne da wutal nekkoon day ëpp solo moo tax ñun dañoo gisoon jàngale gisal yeete gisal ubbee moo tax ren jii ñëpp gis na magal gi daanaka loolu santaan lépp bu doon cent la man nga ne yëpp nit ñi jëfe ko jëfe leer naññe loolu nag ndimbal la goo xam ne suñ suñu taal moo ko moo ñu ko moo ñu ko moo ko may rek waaye suñu xam-xam bu rëy du suñ pexe yu bari waaye nit ñi bëgg nañ Tuubaa te bëgg nañ jumaa ji xam nañ jumaa li fii aay tamit ndigal yoo xam ne suñu jox ndigal moo tax tere yi ñu tere ci jumaa ji amutoon benn jafe-jafe ci ñi màggal si woon wala ñoon ñi fi ñëwoon doon ziyaara si ngir jeexal ay kàddoom nag sëriñ Maxtaar Kan mi yore lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ci daayira Muxaddamatul Xidma di saytu lépp lu jëm ci jumaa ji ak pénc mi soññ na mboolem mbokki taalibe yi ñi te ñi ne ci réew mi wala bitim réew ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax lii di war maay Tuubaa waaye lii di wormaay biir jumaa ji ngir yombal nag liggéey bu am solo bu nga xam ne ni daayira mu xadimatul xidma du dañ mukk di ko defal Serigne Touba ci dëkkam bu tedd bii. ñun ñëpp ñu nekk taalibe rek nekk am mu nekk ay murit dëggal bu ay murit dëggal rek nekk ay julit julit bu ne nag xam na ay limitam charia fi mu ko tëral fi mu ko doon sant ak mu ko xañ murit mu ko tënt lu mu ko sant ak mu ko xañ ñëpp wàcc ci loolu rek ndigal dana yomb a jëfe dana yomb a dana yomb a saare li may doolaa mooy mooy ñu ngi laajte képp koo xam ne nii ab julit nga wala ab murit nga nga bàyyi xel ne jumaa ji nekk nii xel ma moomu ko daayira bi moomuñu ko ñu ko dénk dénkaan nag dañ ci sàmm bum ruur bum réer ndax ñuy sàkku ci mbooleem kilifa yi rek ñu jàppale ci liggéey boobu ba ku ci ne deg si wàccuwaay masal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li moo doonoon seen deuxième numéro Touba Direct àndoon ak daayira Muxaddamatul Xidma ni leen ko waxee di saytu lépp lu jëm ci worma ak kaaraange biir jumaay ji ak penc mi sëriñ Maxtaar Kan doon àddu ci seen kàddu di leen jaajëfal ci beneen numéro Touba Direct jërë ngeen jëf ñoroomu sëriñ Touba musur am gannaaw na taab xam dootul am ku dend sëriñ Touba